fàttali dana jëriñ ña nga xam ni mënees na leen tuddee muminuuna xàqan mënees na leen tuddee muminuuna xàqan niñ ko daan faral di defee nag nee na niñ ko daan faral di defee nag jamono ju nekk rek jamono ju nekk rek su amee kuy jël wérd su amee kuy jël wérd ñu fàttali ko sartu tariqa bi ñu fàttali ko sartu tariqa bi fàttali waale mbokk yëpp sartu tariqa tijaan fàttali waale mbokk yëpp sartu tariqa tijaan comme sama jarbaat bi depuis jamono yi mag ma topp. mu ni comme jarbaatam bi depuis jamono yëpp mi ngi ko topp. wax nga dafa jëm wér. ko ni dafa bëgg jëm waaye amu woon occasion. waaye amul woon occasion. jot. ndax ñàkk jot. te nekk ci ay mission yoo xam. te nekk ci ay mission yoo xam. benn bu ca nekk farata la. benn bu ca nekk rek farata la. moo tax bu ñu yàlla mayee tuuti fii xam. nee na moo tax ba leen yàlla mayee tuuti jot rek. ñu daal di génn. ñu daal di génn. wax ni incha allah. wax ni incha allah. ñu fàttali tuuti rek. ñu fàttali tuuti rek. ci li jëm ci tarixa tijani. ci li jëm ci tarixa tijani. bu ñu waxee tarixa tijani. bu waxee nag tarixa tijani. ci wàllu tënk. ci wàllu tënk. ñaar rek lañ ciy jàpp. ñaar rek lañ ciy jàpp. mooy tarixa bi li mu doon. mooy tarixa bi li mu doon. ak borom tarixa bi ki mu doon. ak borom tarixa bi ki mu doon. xam nga jamono yi yëpp. mu ngi xam nga jamono yi yëpp. léeg mu am ay polémique. léeg-léeg mu am ay polémique. am ca. mu ni da ngay gis sax xuloo di ca am. léeg ay xëccoo. léeg ay xëccoo. ñii di wax dañuy porter plainte. ñii di wax dañuy porter plainte. ndax ñii dañoo contre tariqa tijaaniya. ndax ñii dañoo contre tariqa tijaaniya. ñii naan ñii dañoo xas xadara. ñii naan ñii dañoo xas xadara. dañoo wax dara wasifa. dañoo wax dara wasifa. li leer daal. nee na la leer daal. mooy ku jàppul ci cheikh. mooy ku jàppul ci cheikh Tidiane. dégg ndigalam. dégg ndigalam. ki jàpp ci cheikh dana la. ki jàpp ci cheikh Tidiane dana la. wallaahi. li leer daal li leer daal. mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaan. mooy Mawlaay Cheikh mooy lépp yonent. moo xam yoon ba. moo xam ba. moo xam mooy tibb leer bi di indi. mooy tibb moo ëpp ñëpp xam-xam. moo ëpp ñëpp xam ya ko xam. ya ko xam ñoo ëpp ñëpp wilaay. ñoo ëpp ñëpp wilaay. ku am kilifa nag. doo gàgganti ko ci mbedd. doo ko mukk ci mbedd. balaa wax dara ci xadar. balaa nit bàyyi ba xam yàlla ba. da ngay bàyyi ba xam yàlla ba. ki xamul yàlla. ki xamul yàlla. Allah. mënul balaa ngay xam Allah dëgg. balaa ngay xam Allah dëgg. luy alif. da ngay luy laam. xam luy laam war bu ma déggee nu naan ndax yonent bi daan na waxee nii. nee na moo tax bu déggee ñu naan yonent bi ndax daan na waxee nii. ndax daan na defe nii. ndax daan na defe nii. ndax daan na jëfandikoo nii. ndax daan na jëfandikoo nii. mu ne lu ngeen xam ci yonent. mu ne yéen lan ngeen xam ci yonent. sallallahu alayhi wa sallam. ku xam yonent bi xam nga nu muy def. xam yonent bi xam nga nu muy def. ni ma def léegi man. nii mu def léegi moom. maa ngi wasifa ak yéen fii. mu ngi wasifa ak ñun fii. salon bi ma toog ak yonent bi léegi salon mu toog ak yonent bi léegi. bi ñuy wasifa. ba ñuy wasifa ak Cheikh Tidiane. ak Cheikh Tidiane. ba tàkku brokaane. ba tàkku brokaane. ku fa toogul. ku fa toogul dégg li ñu wax léegi. dégg li ñu wax léegi. mënoo corriger. nee na mënoo corriger mu ko. walaay la. jëm moo tax ma xool leen ca Cambérène. nee na moo tax ma xool leen ca Cambérène. leen doyloo leen li ma leen. wax leen doy leen doyloo leen li ma leen wax. li ma leen wax. li ma leen wax. Cheikh Tidiane Chérif mooy Cheikh Tidiane Chérif mooy waay. mooy waay. ku fi xoolee ba nu corrigé la nag. ku xoolee nag ba ñu corrigé la. te ñu lay corrigé sax gëmuñu tarix. te ñu lay corrigé sax gëmuñu tarix. ñooñu mënuñu corrigé kenn. ñooñu mënuñu corrigé kenn. balaa ñu doon mën a corrigé. balaa ñu doon mën a corrigé. ñu raxas seen xol. ñu raxas seen xol. raxas seen root. raxas seen root. ba texe ba nopp. ba texe ba nopp. balaa nga naan fexe leen dugg àjjana a nga naan fexe leen dugg àjjana ngay bàyyi ba texe ba ngay bàyyi ba texe ba noppi Cheikh Tijani Chérif Cheikh Tijani Chérif mbooloom luy tariqaam mbooloom luy tariqaam muy wér di yeeg muy wér di yeeg askar yeeg askar fu ñu daal di fu jàngal nañu jàngal nañu nii ngeen di defe nee nii ñu koy defe ci axiru zaman nii la ni ngeen di lale malaan bi nii nii lale malaan bi nii. nii la nii la. ni ngeen di jàngi fàcce. ni ñuy jàngi fàcce. nii la nee na nii mooy yoon. ni ngeen di defee astaghfirullah. nii la ilaha ci wasif ci wasif. nii la nee na nii mooy yoon. ni ngeen di jàngee salaatul faatiha. nii ñuy jàngee salaatul faatiha. cinquante yi. cinquante yi. ci wasifa. ci wasifa. nii la nee na nii mooy yoon. ni ngeen di defee téeméeri laa ilaaha illallah téeméeri ci wasifa ci wasifa nii la nee na nii la douze jawharatul kamal yi ngeen di jàng jawharatul kamal yi di jàng nii la nee na ñaan bi ngeen di ñaan bu jeexee ñaan bi ñuy ñaan bu jeexee nee na nii la wallaahi bu dee xadaratul jumaa bu dee bi ngeen di jàng bi ñuy jàng indi istighfar indi istighfar indi salaatul fatiha indi salaatul fatiha wax laa ilaha illa allah wax laa ilaha illa allah ba seen yaram tàng ba seen yaram tàng ngeen jël allah jël allah allah allah allah nii la. nee na nii la. lii moo leen di àggale fii. nee na lii mooy li muy àggale ci. bu leen bëgg corriger ci Allah. képp ku ñu bëgg corriger ci Allah. wala nga toog fa la neex di corriger. toog fa la neex di corriger. amoo yàlla. amoo yàlla amoo yonent bi. amoo yonent bi amoo Allah. amoo Allah amoo Cheikh Tidiane. te kenn dul dëgg. te kenn dul dëgg. dëgg la. léegi ku jóg rek naan allah allah di wax léegi ku jóg rek naan allah allah di wax. boo mokkalee allah. boo mokkalee allah. day leer. xol la day leer. so mokkale allah so mokkale allah firil ma ali ene eh, firil ko ali firil la firil ko la haɓol la firil haɓol oka def mukk wala ñu ngay dégg sax léeg-léeg nee na moo tax ñu ngay dégg sax léeg-léeg ñuy rëbb ñuy rëbb kuy tooñ tarixa kuy tooñ tarixa kuy tooñ tarixa dafa jar dëgg nee na kuy tooñ tarixa dafa jar dëgg doo zikkar ba leer gi dugg ci dënn doo zikkar ba leer gi dugg ci dënn mu xam ni cheikh fi ne mu xam ni cheikh tijaan fi ne jarul rëbb jarul rëbb ñi teg ci jamono. nee ñu bëgg effacé. bu ñu bëgg effacé daañu la effacé. daañu la effacé waaye xam nga loolu loolu fi bàyyi. mooy da di xoole. leer di jëm kaw. leer di jëm kaw tarixa bi di màgg. di màgg ñi di adhéré. ñi di adhéré ci man moo tax yii yëpp. moo tax yii yëpp. ay rumeur infondel ay rumeur infondel yu amul benn dalil yu amul benn dalil ña koy wax xamuñu cheikh ña koy wax xamuñu cheikh xamuñu tarixa bi xamuñu leer xamuñu leer mosuñu gis yonent bi mosuñu sax gis yonent bi waaye ñuy corriger Allah sax waaye ñuy corriger Allah sax te boo waxee gis yonent bi ñu wet te boo waxee gis yonent bi ñu wet te nu toog léegi laa wax toog léegi laa wax ci ba muy wasi ca ba muy wasi ba la wax ñun ci yaqin la ñuy dund nee na li muy wax ne ci yaqin lañ fay teg gis nga ñun tariqa tijaan gis nga ñun tariqa tijaan ñun ci yaqiin la ñuy dund ci yaqiin la ñuy dund dund ñu ci foog naa dund ñu ci foog naa wala dégg naa wala dégg naa wala yaakaar naa wala yaakaar naa wala nii la war a dem wala nii la war a dem la cheikh ñoom Aliou Harazim yor ñoom Aliou Harazim yor Mouhamad Damraye Mouhamad Damraye Mouhamadul Misri Mouhamadul Misri Aliou Tamassi Aliou Tamassi ba ci Cheikh Al Hadj Omar ba ci Cheikh Al Hadj Omar Seydi El Hadj Malick Seydi El Hadj Malick ba Baye Niass ba Baye Niass Serigne Babacar Serigne Babacar mag ñu baax ña mag ñu baax ña Cheikh Abbas Sall Cheikh Abbas Sall ba loolu di law ba fii ba loolu di law ba fii benn wahabit du ko benn wahabit du ko lan mooy wahabit sax lan mooy wahabit sax doo yam ci téere yu weex doo yam sax ci téere yu weex loo xam ci Allah loo xam ci Allah Allah ku ko dul zikr. Allah ku ko dul zikr. xamoo ko xamoo ko. xam nga waxuma waxi Allah sax. xam nga waxuma sax waxi Allah. xam nga lu mu soxlawul. xam nga lu mu soxlawul. mooy ñu toog fi ñoom. mooy ñu toog fi ñoom naan yoon ci bi ndax nii la daan. ndax nii la daan ndax nii la daan defee. ndax nii la daan defee. lu ci sunu yoon. lu ci sunu yoon. ku dëkk ak yoon ci bi nga koy wax. ku dëkk ak yoon ci bi nga xam te nii la daan def. ma déggal dana zikr. Allah ba mu riir la. ma déggal dana zikr Allah ba mu riir la wax. fii ñu xamul dara rek kay fori. ñu xamul dara rek fi nekk di wax. wallaahi ku amul leer. amul leer na moo xamee alif. na moo xamee alif. ku amul yëg-yëg. na moo xamee laam. na muy xamee laam. ku àggul ci yàlla. ku àggul na moo tojee xaaw. na ngeen di xadaraa. nii la. nii la. waaw ci kenn bi. bu ñu ci kenn jëlee. ndax ku leen ci jëlee nag. ku ñu ci jëlee nag. da ngeen di sànku de. da ngeen di sànku de. liñ bi Cheikh rëdd na. lii bi Cheikh rëdd na ko ba pare. kenn jëlee ci loolu ci kenn jëlee. ndax kenn amul maqaama. kenn amul maqaama mën leen cee jëlee. mën ñu ci jëlee. kon mbir mi jarul débat sax. mbir mi jarul sax débat daanaka. ki bañ zikr. ki bañ zikr. xam nga lu koy faj. xam nga lu koy faj. zikar zikar yàlla. ki ni allah du nii. ki ni allah du nii. xam nga lu koy faj. xam nga lu koy faj. waxee ko na mu na nga na nga yëge. waxee ko na nga yëge. sa xaqiqatu Muhammad sa diggante ak Cheikh tariqa tijaan dafa tiital ñëpp nag dafa tiital ñëpp nag ndax dooleem nag ndax dooleem nag te gars yi dañu foogoon day fay. nee na foog ne gars yi dañu foogoon ne dafay fay. am na ñu prédire woon même ni l'an 2000 day fay. am na ñu prédire woon même ni l'an 2000 lay fay. ñu ngi 2023. nee na ñu ngi 2023. adresse bi nit ñi ngay adhéré. adresse bi nit ñi ngay adhéré. leer gaa ngay tàkk. leer gaa ngay tàkk. gaa ñoo ngi jombi ci. gaa ñoo ngi jombi ci Cheikh. te Cheikh waxoon na ko de. te Cheikh waxoon na la. ne woon na aaxiru zaman. ne woon na aaxiru zaman. demee ba lëndëm. demee ba lëndëm ba. projecteur lumière ba dana ñëw. projecteur lumière ba dana ñëw. leeral xolu julli. leeral xolu julli. fu nekk nit di fa fàqe. fu nekk nit di fa fàqe. di naan ci sama leer. di naan ci leer moom Cheikh Tidiane. moo tax mouvement yi contre tariqa Tidiane. nee na moom mouvement yi contre ndax tas nañ ba pare. xam nga lu leen tas xam nga lu leen tas. boo xam ne ña fa toog gëmatu. mouvement boo xam ne ña fa sax yow gëmuñu la yow miy wax. la ngay wax sax xam nañ ni du xàqul yaqin. la ngay yëkkati dafa woyof seen. la ngay yëkkati dafa woyof seen ci am yëg ba duñ fa toogee dina déglu. kon buñ fa toogee dina déglu daanaka. bàyyi nañ la bàyyi nañ ah, man de lu mu mën daal mooy wax rek. nee na daal mooy wax rek. li ma mën daal mooy soññaate rek li ma mën daal mooy soññaate rek. li ma mën daal mooy ni leen mbir mi. lii la li daal mooy ni mbir mi lii la. wax na xam naa ko li ñu leen wax na xam na ko de. la ma leen di wax ci Cheikh. li ñuy ci du xaal de. du xaal de. du sopp ko kese. du sopp ko kese. du bëgg rek ñu ni dama ci am yaqiin. dama ci am yaqiin. ku la bëgg corriger ci tariqa. nee na ku la bëgg corriger ci tariqa. wala bëgg la corriger ca na ngay xadar. wala bëgg la corriger ca na ngay xadar. wala bëgg la corriger ca na ngay wasifa. wala bëgg la corriger ca na ngay wasifa. te waxuma moom. te waxuma moom. waaye boo ko jëlee moom. waaye boo ko jëlee moom. ak ñi mu am ñëpp ak ñi mu am ñëpp. ak ñi mu yaakaar ñëpp ak ñi mu yaakaar ñëpp. ak kuréel gam bokk yëpp ak kuréel gam bokk yëpp. amuñu benn représentant amuñu benn représentant. waxuma ca xadratu ilaahi waxuma ca xadratu ilaahi représentant bu jege nii. représentant bu jege nii amuñu ko. du poliser kenn. nee na kooku dana poliser kenn. <laughs> kooku jar na dëgg. nee na kooku jar na dëgg. xamul yaqin. xamul yaqin. ndax yaqin soo ko xamee. ndax yaqin soo ko xamee. da ngay xam ni ndekete certitude. da ngay xam ni ndekete certitude. loolu mooy dëgg nag. loolu mooy dëgg ndax loolooy dalal. ndax loolu mooy liy dalal. Cheikh àtte na ba noppi. nee na Cheikh àtte na ba noppi. woowul kenn di ko propagande woowul di ko propagande. na ko ba noppi indi tasaare na ku ci bokk xam nga sa bopp ku ci bokk xam nga sa bopp. ay gaay ma nga leer nañ. nga seen kanam ya na seet seen kanam ya mel na seet. ñàkk contre nga lëndëm kurus nga lëndëm kurus. seen kanam yaa gën a ñuul kër seen kanam yaa gën a ñuul kër ku wax rek jox ko seetu. ku wax rek mu xool bopp mu xool boppam yow man xiyam bu ñu dekkee yow ñu dekkee ñiy doxe leer ñiy doxe leer ñooy ñi jëm àjjana mooy ñi jëm àjjana ñiy doxe lëndëm ñiy doxe lëndëm mooy ñi alko mooy loolu Cheikh tëral na ko fii loolu na ko fii gaayum yu ko gëm ko gëm seen kanam yaa ngay melax seen kanam yaa ngay melax a compte seen kanam yaa nga lëndëm kanam yaa nga lëndëm kurus ku ci waxtaan tuuti jox ko seetu mu xool boppam jox ko seetu rek mu xool boppam moo tax lumière bi nu amee mooy réalité bi mooy réalité xam nga réew mi nag moo yàq ko. xam nga nag réew mi nag dafa yàq. da ngay gis ku toog rek. da ngay gis téere bu ko yàq. yor benn téere bu ko yàq dafay reeloo nit ñi sax. dafay sax reeloo xadar. di wax ci xam. yow loo xam si xadar. loo xam si yow loo xam si xadar. xam nga xadar ku ko bëgg xam nooy def. ku ko bëgg xam nooy def. da toog ci malaan bi. da ngay toog ci malaan. zikr laa ilaaha illallah. zikr laa ilaaha illallah. allah. zikr allah ba ñàkk tooy sa yaram tàng. ba sa yaram xam xadar. da ngay lan man li ma si gën a metti la moom li si gën a jaaxal koo si dégg rek mooy koo si dégg rek naan ndax yonent bi daan na def nii naan ndax yonent bi daan na doxalee ndax ndax nañu leeral ndax nañu leeral ndax daan na kii nii ndax daan na kii nii ngeen xam ci yonent bi nee yéen lan ngeen xam si yonent bi xamul leen sax fu mu jaar xamul leen sax fu mu jaar ñun ñoo xam yonent nee ñoo ñii ñoo xam yonent ñu liggéey ci sakk ñu toog ak moom di toog ak muy wax ñuy dégg muy wax ñuy dégg ñun ñoo ko xam ñoom ñii ñoo xam yonent ku fi mën a yëkkati loxo. ku fi mën a yëkkati loxo. wax léegi balaa vingt fii léegi vingt minutes. wax léegi fii ak vingt minutes. yonent bi wax na naan. yonent bi wax na naan ba ñuy wasifa léegi. ba ñuy wasifa léegi loolu lan la wax. wëral ñu bari fii. wëral ñu bari gaa wax leen ni leen. wax leen ni leen. ci 19 heures. ci 19 heures bii. ci tay nii. ci tay nii waxtu bii. ci waxtu bii te salon boobu ñu. salon boobu ñu. lan la yonent bi doon wax. yan aaya la fa jàng. lañ fa wax Cheikh Tidiane. nee na lan lañ fa wax Cheikh Tidiane. lan lañ bind te leeru yàlla. lan lañ bind te leeru yàlla. lu yàlla wax mooy sant. lan la yàlla sax di mooy sant bi ñu war a sant. ndax alhamdulilah. ndax alhamdulilah. ndax junjul dara. ndax junjul leneen. ñu ko fekk. kan moo ko fekk. ñun ñii yow sëñ bi nag ku fa àggul yooyu nag ku fa àggul te Cheikh wut ay taalibe ñu fa àgg Cheikh wut ay taalibe ñu fa àgg buñ la waxee moom téel buñ la waxee téel jàppal jàppal mooyal mooyal jàppal de jàppal mooyal zahir loolu mooy réalité bi. loolu mooy réalité bi. axiru zaman de. axiru zaman de lëndëm na lool. lëndëm na lool waaye ñun sens bi ñu am. waaye ñun sens bi ñu am. mooy tariqa tijaaniya. mooy tariqa tijaaniya. mooy sunu sens de. mooy sunu sens de. ah daan nañ wax de mag de lu mu mën. mais daan nañ wax de mag de lu mu mën. mooy ni jàpp leen rek. mooy ni jàpp leen rek. ñi fi wax ñëpp. ñi fi wax ñëpp. Cheikh Alhaji Umar leen ëpp xam-xam. Maodo daa leen ëpp xam-xam. Serigne Babacar leen ëpp xam-xam. Baye leen ëpp xam-xam. te ñoom ñëpp. te ñoom ñëpp ñi ma tudd. ñi ma tudd. nga xam ne ñoo leen ëpp xam-xam. nga xam ne ñoo leen ëpp xam-xam. koo ñëw ci malaan nga si bëgg a wane rek. koo ñëw ci ñoom ci malaan nga si bëgg a ak ci xadar. ak ci xadar ñoo ëpp ñooñu ñëpp xam. nee na ñooñu ñi muy wax ñoo ëpp ñëpp xam-xam. kon nag ñooñu niite yoon bi. ñooñu niite yoon bi. ñu ni yoon ba nii la. ñu ni yoon ba nii la. yoon ba noonu la. yoon ba noonu la. nunu téye ak fukki loxo. ndax ku téye. ndax ku téye sa bopp rek. sa bopp rek ngay jëlee wallaahi Cheikh Tijani de mooy lépp. Cheikh Tijani de mooy lépp. ah boo ko demee ca xadara yonent seen mooy sant yàlla ba nañu ko gërëm bi mu ñu boolee ci tarixam. nañu ko gërëm bi mu ñu boolee ci tarixam. te nañu ci jàpp lépp lu ñu mën. te nañu ci jàpp lépp lu ñu mën. ku la ci bëgg détourné génne la ci tarixa tijaani. génne la ci tarixa tijaani. nit kooku xam ne ku réer. xam ne ku réer. xamul li xew la. xamul li xew la te jàpp tarixa tijaani. te jàpp yow tarixa tijaani. ku la bëgg tàggaleeg Cheikh Tijaani. ku la bëgg tàggaleeg Cheikh Tijaani. bàyyil kooku. bàyyil kooku soreel kooku. soreel kooku te jàpp ci Cheikh Tijaani. te jàpp ci Cheikh Tijaani. mooy sa njëriñ fii. mooy sa njëriñ fii mooy sa njëriñ fële. yàlla nañu yàlla téye ci boobu yoon. yàlla nañu yàlla téye ci boobu yoon. yàlla nañu yàlla def taalib taalibeem xaqan yal na yàlla def taalibeem yal na yàlla def mu nangul nu yal na yàlla def mu nangul ci zaahir ak ci baatin ci zaahir ak ci baatin ci ayib ak ci xaqiqa yëpp te ñu ànd ak moom abadan lil abidi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala MCTV le canal de l'information utile et le support de la vérité par la vérité. Les